waaw ñu ngi toog ak trésorier wu Ahlou Lamb Sénégal mu nekk koo xam ne ndaanaan la bokk si Ahlou Lamb région de Thiès waa Père Cheikh Fall maa ngi lay ziare <laughs> nekk koo xam ne tamit tarkaala membre la boo xam ni donte bi mu ñëwee yàggul mais jëf na si jëf joo xam ne tarkaala démb ku ko fekk si guddi ah, campement na mu def nag bi ak na mu ko feesee yëpp danga naan déedéet kon ñu ngi koy ziar Abdou Gomaay Diop borom kër Baba Alima ziar nañ. laa Léon ñoo lay ziar ba ci jàmm naka yi tey am tawfeex sant ak ngërëm ñeel na la ah, ñu bëgg rek nga expliquer ñu présenté wu d'abord sax wax yow yaay kan ak lan nga si ak làmm Sénégal daal di xuus nag si bis bi ak li ngeen dépassé ah lan la ndax trésorier moom dina xam lu bare bëri si dépassé. waaw laale yoon Abdou Gomaay Diop la nekk doomu Kër Baaba juddoo Kër Baaba yaroo Kër Baaba màggee Kër Baaba tey na xam naa bu ñëwee Mbour moom danoon nëbët suñu garaan yi fi nekk suñu doomu ndey waaye rek loolu dara liggéey moo nu fi indi axu laamu Sénégal nag ndeysaan ñu ngi ci dugg presque un an ay six mois lañ ci nekk mais vraiment dafa nekk groupe boo xam te ni famille la groupe bi boole la ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay képp koo ciy déggante rek ndeysaan da nga naan kii la ma yéene yéene wu ko boppam kon nag nan santaat yàlla bu baax a baax. tey jii nii boo ñu mënoon wax en tant que trésorier dépasse bi ak dugg yeeg génn yéeg jàppale yi ak nan la ko gaa yi taxawee ak axlaam Sénégal nu muy doxee ba tey ji ngeen mën a taxawal journée bu mel nii mu nekk seen deuxième waaw Ahlou Lamb Sénégal vraiment dafa nekk groupe boo xamante ni ay bonne volonté ñoo ci nekk lu ci mel ni ku ci mel ni Abdourahmane moom moo ko jiite euh, wàcc si ak toole sunu yi ne ci kaw ñoom ñëpp du ma lim su ma limee du ma mataal ndax ñi nekk ci kaw bëri na ñoom ñu def ni mbir mi seen biir la kenn ku nekk la la sasoon da ngaa bay sawaar ba bayaaleel doomu aadama yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy senegal ku ci mel ni euh, sunu bi maye ndox bi Euh, Issa Laye jox nañu 30 sachet ndox xamoo kon loolu ñun dañ ciy fierté te vraiment euh, dépense bi bëri na seer na mais nag sant yàlla waa Ahlu Lamb Sénégal ay champion ñoo ci ne ay borom baax ñoo ci nekk waaw. tey jii nii nii nii gars yi bu ñu mënoon a xam budget bi ndax sànq euh, président def nañ daaw dépassé woon nañ 700000 mu yem ci képp ren ngeen def 2 millions te xam naa ni boo demee ëpp na ko daa wax noonu rek. non ren ci li ma à peu ma jàppagul rek man génn mat 1 500 man sama jëm bopp li jaar sama loxo 1 million 500 Brésil li jaar ci loxoom rek war naa mat 1 million kon nag vraiment bëri na torop mais nag mention spéciale ak waa Ahlou Lamb Sénégal ndax ay bon volonté ñoo ci nekk di santaan nag ñu ñu jàppale politiciens yi ku ci mel ni Malick Gueye is euh, Cheikh Issa Sall ak maire Ngexo xam nga ñoo ñëpp jàpp nañ ci bis bi kon vraiment dafa nekk loo xam te ni gars yi kenn ku nekk bay nga liñ ci am ñun depuis démb ba léegi ñoo ngi sali ñoo ngi mbuur diggante campement ak fii Euh, gane ñoo ngi ñëw essence yi ñu ngi doon leen doon berne ci kóoni ji kóoni ji mooy première berne mais nag tey fii dara du fi yomb laal yoon man maa la loolu waaw. tey dara du fi yomb bu ñu déggee loolu mais tey ji ak laamu Sénégal fan la teg bëtam. ak laamu Sénégal fan la teg bëtam yóbbu làmb foo xamante ni kenn mësu faa yóbbu làmb ta loolu mooy boo xoolee nag ñuy ñëw nii ay raay ba ah mi nekk ci Ligue Nicolas boo duggee tambour major yaa ngi ci biir mbër yaa ngi ci kaw ñoom Libidor ñoom tir boobu tiyaawan kon xam nga Ahlu Lamb dafa nekk groupe boo xam te ni famille la te kenn ku ne da ngay indi sa nit man defe naa li ma invité yow li nga invité bëri na kon nag ñun ñoo bokku ndey ñoo bokk baay amul kenn ku nekk Ahlu Lamb Sénégal kuy xajamal ñun ñëpp danoo yéenante jàmm man li ma yéene sama bopp laa yéene laa leyoon loolu la Alpha yéene keneen ku nekkaa ci biir groupe bi kon nan gën a boole xoli doon benn incha allahu rabbi waaw tey sa kàddu rafet na ñu ngi lay kontaan di la jaajëfal ba si kanam ñu ñëwaat ci leneen. waaw santaan nañu yàlla bu baax di leen gërëm lii xam na après ci benn rek fu ci toll waaw Basiirou borom wasaare. lamb ji gis nañ publicité bi mu def ci lamb ji kon nag vraiment ñu koy sant di ko gërëm télé bi yàlla na doon télé boo xamante ni ca kaw ca kanam incha allah rabbi mention spéciale à Basiirou kan borom nasru minallah <laughs>